السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله يا أرزاق يا ملكي المفتوح في الدنيا وسكنكم أنا أخي أتنا عجلا بالبشر محمد حداكم إليه القناة بس الدعاء دعاء وحمني وقني أبي الله كنا السماء والآدي وحمد بها مشايك النور مسلمنا أجب وسبع سمين حسادي محمد ولا وتهلي فكاية طبعا وكاية مجنة السلام عليكم وسلمنا وحمد حمنا آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والرهن تقدمه وأطلب روحية والمدرسة خديمية وكجو خدمي المهني بيلك وسائح نب نب لكن فين وادي من دي دي بشاعر لكن مو دخلنا بيد وو من البلاد أبلاد لا الأبلاد لا ضم حياتي بحياة بحياة الله الله داخل جنان الله réseau Jokalante ñoo ko lax ba léegi di dama laaj ne ma dafa am laaj boo xam ne ko laajoon benn ustaas mu wax ne loolu wérut wérut ma leen lu mu doon ñu ne ma damma xayaati di xayaatillaahi allahu daaxili jaanillaahi may leen ah may may leen moom da ko xamul rek suñ suñ booba formation Arabie Saoudi la am Arabie Saoudi la génne xam naa li li li ñuy wax ne ñoom majaas majaas amut majaas abal bi amut xaq lépp xaq la baat yi bu arab waxee baat dara xaq di da ci jublu ndax ñoom sax dañ koo jéggi sax ba ne sax majaas yàlla tere wax ju junu la maanaa maanaa wax ju amut la waaw te fekk na wenn làkk woo xam ne amut majaas amut ndax ndax ab xel ni ko seen boom tëgge maanaa yu bari jotaay yu yu bari yi buñ ko bëggee wutal benn bu nekk wutal ko ab baat kon kon baat yi dana bari lool xam ni kon ab zakiram mémoire am du ko mën a attan takkukaay bi bi takk tey bi takk mbir yi ci bopp bi du ko attan lu mu yaatu yaatu rek li li gën a yomb mooy xel wutal ko ay ay symbole symbole ay ay ay junju moo tax moo tax ñu ñu am ay ñu am li ñu tuddee majaas wala bokk li ñu tuddee abal piri terminologie bi yi am nga xam ne tënk tënk yi am ci xam-xam yëpp loolu ko indi xam ne baat bi sax day firi asalaatu ci làkku arab mooy firi addu'a ñaan bu dee asalaatu loolu mooy làkk wi bu dee ci fiq xam-xamu fiq moo mooy julli noonu noonu ñu ko xam ne allahu akbar asalaamaaleykum kon kon kon baat yi yu wuute sawmu koor mooy mooy al al al imsaak jàpp ñooñu di sax naan waxu jàpp bi nangam la waaye sawmu ci ci fiq mooy noonu ñu ñu ko xamee al imsaak an saxwati farji wal batn nangam nga xam ne ne kon terminologie noonu lay doxee benn baat bi dana jóge ci ci xam-xam bii dem ci dem ci beneen firi yi neneen bu ko doon mën na firi ci xam-xam sangam waaw waaw waaw loolu loolu moom xam naa yóbbul booba xam-xam booba daa toll foofa bu bokk na ci idéologie nag li nga xam ne moom lay gàllankoor nit mooy du du du mën a génn mbarom idéologie moom ëttam ba du ko mën a génn waaye li ñu tuddee al al ittihaadu fil masab loolu wala at juddu fil fil mazhab loola loola loola mooy may ñu ñu gën a yaatal dégginu ñu ñu jiitu woon ca ci ci ni fi jamono tolloog ak ak ak gafa ci xam-xam waaye bu dee da ngaa tënku ca démb nag doon mu xaabis doo doo ubbiku ci yeneen yi kon moom sa lépp réer dégg yàlla di tënku ba nga xamante ne ne sa sa sa sa soo gisee ndey xat lool si si atte daal di safañoo li am dama xayaati li xayaati li xayaati llaahi nga xam ne sunu borom allahu daal di di jaani laahi sunu borom mi nga xam ne aji des la moom tàmpe na sama dund gi ci te dundam ga ni dundam ngay wéyee na la sama dund gi di di wéyee ñu ne ah wax kii moom lu wax waay lu mu wax ni dund yàlla gi nan la ci ma tàmpeeg dund muy wéy te te demal ca la ko jub sax mooy ruux nafaxtu fiihi min ruuxi ruux gi su doon ne ma ko ci ci man laa ko sama jub yi tëdd ci laa ko jëlee naf ko ba da nga di firi ëpp ëpp ni ngelaw kon moom loolu it aw làkk la bu dee ëpp ngelaw pas-pas ba daal di daal di bon ko ko fas ne yàlla day ëpp ngelaw kooku day am kon ay appareil yooyu ay ay gis ay cër yoo xam ne cër yu gën a ngelaw te loolu taal la am ay gis woon kon woon na waxtu ji dañ koy abal prix nga xam ne mu xëpp def tàngam nga xam daal ruuga ruu ji ruug yi daal ju ju jóge ci yàlla ci ci kon fekkoon kon ruug googu moom du dee moo tax ñu naan annaf su may dee ruug yi duggee ci yaram wi jur alxayaat xayaat ba maanaa nuñ koy wax di barab bi nga xam ne wala bokk wala wala bokk wala bokk réseau bi nga xam ne ci ci ci moo ci juddlu moom lañ fi an nafs waxoon ne ko ci ci waxtaanee na an nafs ak xawaa juddu xalbu almaarifa juddu naka la waxoon nañ ko ci waxtaanee ma nga ca ca xam ne ca ca ca nañ koy waxaati waaw waaw ca alxali wal manzuriya kon kon kon ru ruuk kon moom lu du dee la nafsu mu boobu yi dee dund gi juddoo woon ci biir ruu dugg ci yaram lool lool loolu mooy fay mooy fay ñu tudde ko dee waaye ruu moom day dund di di di di di di wéy waaw waaw ne kon ruul bu amee relation jëmm ji ñu ne ñu ne dund. nga dégg nga wolof woon nga xam ne baa kaa kaa mooy ruu baa mooy nafsu ca hiéroglyphe yi ci Égypte jëkk ja wolof daal di ñëw jël ko moom ne ba bakkan mooy kon su ruu gi nekkee ci biir yaram nga xam ne ne arruuxu wa nafsu arruuxu wa nafsu su boobaa wolof tudde ko bakkan bu dee nag ruu gi génn na ci yaram wi wolof tudde ko ruu xam ne ruu mooy lu absolu bakkan mooy loolu mooy lu tarabus bil maddati mooy li nga xam ne dafa mbubboo matière dafa dugg ci matière na wala na waxtu fii ji soo soo soo baa nafsu lay lay doon yooyu waxoon nañ ko kon kon day mel ne ko kon ci alxuraan kon moom nga ci dégg dégg ne kon moom dund gi mën naa bàyyi jeex dund gi kii nag moom waxu ci ci làkk woowu mu ngi waxee ci làkku waxu ci loxatan ci alxuraan loxatan waxut waxut boobu mu ngi wax ci alxuraan ci alfahmu suuf yi dé dégg subenk yi waaw mooy albaqaaw al albaqaaw nga xamante ne nga xam ne nga nga xam ne alxuraan nee na bu leen jot ne gaa yi faatu ci xare lislaam yi dañoo faatu waaye ñoom kat aji dund lañu mu ne bala ahyaun inda rabbihim yursaqun yursaqun de mën naa nekk renforcer leen roo yi seen roo yi renforcer ko muy dund wi ane yursaqun ji mu taarix la day tëjudut am taarix yu fi dut tëjudut day yees nga xam ne jumbul jumbul ca anglais na present continuous présence sant continuous mooy mooy loo xam ne day dox daa tàmbali li ba noppi di di di wéy xanaa nga ne ñetti temps yëpp dafay am démb ak tey ak ëllëg wala lu weesu ak ak teew ak ak ak li ñëw kon kon dama xeeti xee ci leex ma man day campé na sama dund gi ci dund yàlla kan la allahu yàlla daaxila jinaa ni lillahi damay nekk ci biir àjjana yàlla ja di wéy woom ri ilal jinaa ñaidu man sama dund gi yëpp day nekk ayit coono jeex na coono coono jeex na saa si la ma waxoon laa Fatima mu radiyallahu anha ne ko alayhi wa alayhi salaam ne ko laa karaba ala abiki ba'dal yawm sa wajur tey lay mujj a sonn nga xam ne kon mooy xayatam ba day wéy ci biir àjjana yàlla ja loolu loolu loolu ko ko leer na kon léegi bay ju kon moom li muy wax lépp rek mooy ci ci bil mafhum suuf yi mooy albaqaa maa baad albaqaa ila albaqaa waaw ñoom la xam maa baad albaqaa ila albaqaa soo demee ba seen dee yooyu ñuy wax dee nga ko ba ba ba ruugi set wicc xad aflaha man zakka set na wicc léegi kon kon su boobaa bala axyaawun inda rabbihum yursaqun rek moo cay daal di tegu ko kon kon kon bayit wi albaqaa u lay wax albaqaa ku dem ba am baqaa léegi nag résultat bi bi bi mu amaat ci ci ne kat moom day dund di di wéy mooy day am ma jokkaloo jokkaloo ak adduna bi mutlaq lay mën a jokkaloo suñ suñ tubaab mi ngi doon nettali suñ moor njaaxu siise ak ak beneen bokkam daaraam sëñ bi di wax waxtaanu na ne kat moor njaaxu siise ak ak ak bokkam de dañoo romb fii mel nañ ci ay fafal naaw lañu la lañ yor ba tiim jumaa ji njëriñ ji nee na kenn ka ne suñ moor njaaxu siise fii de dafa mel ne suñ suñ sëñ ba fii la suñ sëñ ba dëkkoon nee na nee na sëñ Mor Njaaxu Siise si Siise suñ bi nekk li sëñ Mor Njaaxu Siise ne ko ah amoon nañu ab suñ ci àdduna kooku kon albaqa la moom ñu mën di wax sëñ Mor Njaaxu Siise ak mbokk moom ñu ngi ñu ngi ci baqa alimul baqa yi fil baqa yi ñoom kon ñoom ñoom albaqa lañu am bal bal bala ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun kon kon moom Jaafar moomee faatu woon ca Uhud la yonent bi salaam wax ne que ni ñëw na bokkam ma ñu dugal nañ leen ci jokkook ay picc yu wert jóge jóge àjjana ñu dikk di di xool machette ba di xool ba xam xew-xew ba nam demee nga xam ne ñoom ca àjjana la la la lañ leen la ñuy nekk di di fofar kon moom balaa xew inda rabbihim saqul moo tax Jaafar mooy mën a ñëwaat adduna ale ale alayhi salaam def ba sàq di di di ñëwaat adduna danañ koy wax te wax ne suñ daamu Abdurahmaan nañu wax nañ ne wax nañ ne daara wax naan kéemam yooyee kàngam yu mag yi moom kenn si rafal ñoom kàngam yooyee ku ci masaa dem moom day bokk ak day ànd ak yow bokk ak yow teraanga ja bernde yi nga defal ajana ba noppi nekk fii loola moom loola moom ci ci mag yi sori na lool sax ci mel na ci dëgg waaye jege na am na yàlla mën na laa may yow nga ci ci nga ànd ak kuy dem ba sàq ngeen ànd ngeen ànd kuy dugg ajana ngeen ànd ba ci buntu ba loolu loolu am na ñu ko yàlla sax moom waaw loo xam ne du ay léeb moom ci lupp waaw saa boobu saa boo ko yàlla saraxee nga xam ne ne ay lépp ay lépp nga ne fii ci àdduna di ànd ak ku ne ba sàq ngeen ànd ba ba ci buntu àjjana waaw loolu loolu moom loolu moom lu am la expérience la bu ama am ci sukkante yi ku yàlla saraxee tarax nga xam ne am nga ko kon ko te koo kat ñu ngi fii àdduna kooka di ànd ak ka nekk ba sàq moom fii ci àdduna lay nekk ànd ak kooka doon mën a mën a dikkat àdduna ci loo xam ne jumbul moo gën a gaaw cers moo moo gën a xat cers seconde cers cers yooyu waaw nga xam ne xaajaatu si seconde lay doon loolu moom ay xam-xam la yu xóot koo xam ne ne xamoo ko noonu nga xam ne xam-xam bu ne seeni seeni baat yi ñuy waxee te baat yi mooy ci làkku làkk ci làkk wi ñuy waxe nga xam ne la nga xam ne làkk wa benn la waaye xam-xam yi koy wu- ñoo ñooy wutale diggin yi kon kon loolu rek la wax ju leer la ci koo xam ne da na da ngaa xam ci suuf dara xanaa kon damma xayaati yi li xayaatillahu allahu damma xayaati yi li xayaatillahi allahu daaxila jinaanillahi yàlla na suma sarax te xam naa te suuf moom moom moom lu lu lu leer la dafa leer nag ba nga xam ne day far mujj lëndëm waaw waaw ci day mujj lëndëm dafa leer ba ëpp na sax waaw leer ba mujj far mel ne mel ne mel ne luy lëndëm xam naa dan daw jëm ci rek daal daw jëm ca yàlla ku daw ko fafiru ilallahi jamian ay ayuhal mu'minun loo soxla yàlla ci loxo bi yàlla nekk loo ragal ci loxo bi yàlla nekk bu yàlla yàlla ubbee bunt yi lépp xew yëpp yëpp ñëw wala yàlla dàqale lor ya wala lor lu dut ak si sumba mi yàlla na nu nu sarax xéewalam yëpp ba noppi may ñu may ñu ñu ñu sopp jëmmam ñu sell ja ba mu ñu sell ja sant xéewalam ya te bañ a waru ndox suñ digganteeg lor yi yëpp lor yi nga xam ne ci loxoom la nekk yëpp rek ndox suñ digganteeg moom may ñu lii ma lislaam lexsaan joxandik yaay yëpp barke man xaala dama xayaati yi li xayaatillaahi allahu daaxil jiyàlle عليه أكبر ولا مخدوم وعلى مخدومه صلى الله عليه على عليه وسلم أزكى صلوات الله و- وأنمى تسمته آمين إلى يوم الدين